mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyu nañ leen siyaar nañu leen bu baax a baax a baax 18 safar gi la ñu nekk yoonu màggalu Touba la ñu nekk ñu ngi ci màggal gi waaye tey ñu ngi fii nga xamante ni moom mooy euh, ci kërub euh, Cheikh Béthio Thioune moom yàlla na yàlla yokk leeram xare ko àjjana sëriñ Saliou Mbacke ba mu yaakaar mu gisee moom sëriñ Saliou Mbacke moom it yàlla na yàlla yokk leeram taas ñu ci ay barkeem sëriñ Mountakha yàlla yàggal ko fi. tey ci ngaabu la ñu nekk ci màggalub Touba gis ngeen li nga xamante ni moom mooy xéwal yi nag yi commencé nañu ñëw moom soxna si ayda Diallo cuun yàlla na ko fi yàlla yàggal ak bépp jëwriñ dem nañ ba Mali jëli nag yi nga xamante ni moom la taalibe yi wala xéwaloo nag yi nga xam ni moom la ñu màggalee bésub sëriñ tuubaa gi di bés bu tedd gi ndaxte moom ku tedd gi moo ne bés bi bu ñëwee na ma ko defal ay cant sant leen ma ko yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax liggéey bi nga xamante ni moom la doon liggéeyal suñu borom ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey ñu ñëw daal di xool ana nan la ñuy waajee bés bu tedd googu di màggal gi nañ ko defee woon daaw defee ko daaw jéeg noonu lañ ko defaatee ren ñëw xool nag yeeg gëlëm yeeg xar yeeg ginaar yi ndagam lépp ñëw na ndagam tamit fi mu nekk nii ñu ngi koy waajal bu baax ci wàccaay bi jot nañu waxtaanal koo xam ni kenn la ci jëwriñu moom euh, kii di soxna Aida Saliou Thioune waxtaan nañoo moom sëriñ saaliw Mbow waxtaan nañoo moom moom jëwriñ bi bañu waxtaanee moom am na lum ñu dénk waaye contexte actuel bi jarul ñoom ñuy fës jarul ñuy wax ci ndigal la ñuy doxee waaye lañ ñu wax ci nag yi. mat na ay junni junni nag yoo xam ne ñoo ñëw am na yu jot ñëw am na yu nekk ci yoon bi gëléem danañ ñëw xar yi danañ ñëw bëy yi danañ ñëw ganaar yi danañ ñëw ñëpp xewalu ci bésub Serigne Touba muy bésub cant gi waaye li ñu gën a nemmeeku mooy bi ñu toogee di waxtaan gis nañu ay nit yoo xam dañuy jugee dëkk ak dëkk maanaam ci village yi ñëw bëgg am ci xéwal yi waaye mu mel ni kii rek moom jëwriñ bi lim ñu wax sëriñ Saliou Mbow ñu koy gërëm bu baax a baax ci yaatoom lam ñu wax rek mooy am na ñoo xam ne dañuy bindu juróomi weer balaa màggal gi di ñëw bu ñu gisee nag yi dañuy war a def au delà de li ñuy gis maanaam nag yi ana naka lañ ko war a joxe ñi nga xamante ñoom ñooy taalibe yi naka lañ koy séddoog ak mbokku taaliba yi rawatina ci sancaani waaye lam ñu wax mooy fii nga xamante ni moom mooy ci ngaabu fi ñu ne dina am kër yoo xamante ni bunt kër bu ne danañ fa yeew benn nag te dëkkuwaay bi képp koo xamante yaa ngi fi dëkk dañ la yoreel añ ak reer ñaari fan avant màggal bésu màggal ñaari fan après màggal muy juróomi fan yoo xamante ni moom Aïda moom soxna Aïda Saliou moo lay jox añ reer ñaari fan avant màggal bésu màggal ñaari fan après màggal mu nekk xéwal mu nekk loo xam ci cant gi la bokk muy berne yoo xam da leen di koy jox waaye weesuwul foofu dina am ay sancaan yoo xam ne ndaxte moom Serigne Saliou Mbow jëwriñ bi lam ñu xamal mooy Serigne Saliou mu tedd bi yàlla yàlla yokk ay leeram dafa mës a wax Cheikh Béthio Thioune moom itam yàlla yàlla yokk leeram ne ko dama seetlu ne kat chaque màggal da ngay gis ñoo xam ne dañuy jugee dëkk ak dëkk. ñëw di foraatu ceeb yi nga xamante ni dañ ko doon desal ci màggal gi buñ demee weer ko di koy xéwaloo mu ne ko kat sëñ bi cuun bëgg naa ngay bàyyi ñooñu xel bu baax a baax di leen mën a dimbali ci xéwalu cay sëriñ Saliou dégg nga de mu bàyyi loo ko xel loolu moo tax ba nee nañu cheikh bi daal di tas ci yenn dëkkuwaay yi muy ci yenn village def fa ay sàncaan maanaam def fa ay màkkaan ay këram ndax bu màggal ñëwee ñooñu mu leen di bàyyi xel ndax bu weesoo màggal tamit ñooñu mu leen di bëgg bàyyi xel ci ndigalub sëriñ Saaliw mu tedd mi kon loolu moo waral tey cheikh bi daal di tas ay këram ci yenn village muy ay sancaan yu bees rawatina fii ci ngaabu ak feneen ak feneen ak feneen ngir mën a jege ñi nga xam ñoom ñooy taalibe yi ngir mën a jege askan bi nga xamante ni dañuy soxla ñu leen di bàyyi xel ci ay bernde ak ay xewalu kon loolu la waaye tamit Serigne Saliou Mbow moom jëwriñ mi nee na ma daaw rek mat na ci cent vingt et quelque wala lu ko weesu ci ay waañ yoo xamante ni soxna Aïda Saliou amaloon na ko ci màggal gi lépp ci wàllu xéwal xéwal gi bi la waaye tamit dinañ dem ba ci kanam nga xamante ni moom soxna Aïda Saliou dafay yokk waañ yi ngir xéwal gi daan di gën a mën a baawaan ngir bernde yi daal di gën a mën yaatu ñëpp mën cee jot waaye tamit nag yi nga xamante ni moom ngeen di gis ñu koy dàq ñu takk ko fii yépp dañ koy seddale jaam yi waaw lépp dañ koy séddale taalibe yi ci màggal gi du rek nag yi boo leen ko gisee fii lañ koy rayee fii lañ koy xewaloo waaye déedéet dañ koy tas ci sancaanu Cheikh Béthio yi moo xam feneen ak feneen ci biir village lépp dañ koy tas gis nañu ay nit yoo xam dañoo ñëw di bindu pour mën a am ci nag yi pour mën a am ci bernde yi loolu suñu bët ak Seydina ak Ablaye kon mi ngi noonu euh, ki nga xam ni moom mooy jawriñ bi loolu lañ ñu xamal kon fi mu nekk ni nag yaa ngi fi ñi nga xam ñoom ñooy bindu ba tey ñu ngi ñëw di bindu pour am ci nag yi am na ñoo xam ne nag dañ leen di séddale añ reer ñaari fan avant màggal bésu màggal ñaari fan après màggal ci ndigalub ki nga xam moom mooy Serigne Saliou mu tedd kon jëwriñ bi sax euh, lam ñu xamal bëggoon nañu mu yëkkati ay kàddu waaye si ndigal la ñuy doxee ndaxte soxna Aida Saliou moo leen jox ndigal ne bu ñu yëkkati benn kàddu ndax coow yi nga xamante ni moo jot a am ci fan yi ñu génn kon moo tax yëkkatiwuñu benn kàddu loolu yëpp ñu baaxee ñu ko ne ñun mën nañ koo wax mën nañ jël image yi baaxee ko ñi nga xam ñoom ñooy taalibe yi ci wàccaay màggal gi